mbokk déglukat yi dalee nag jàmm dund ak jàngoro sida te doo ko wàllu kenn mën na nekk ndax am na ay jéego yu rëy rëy yoo xam ne def nañ ko ci wàllu gëstu ci mbirum wérgu yaram kiy dund ak jàngoro ji bu fekkee mu ngi topp traitement ARV am lu ñu duppee antirétroviraux dina améliorer qualité dundam waaye it dina yokk gudd fanam dina tolloo sax ak bu ki nga xam ne dara jotu ko bu ñu sukkandikoo ci docteur Safietou Thiam bu conseil national de lutte contre sida ñu teewlu ko Babacar Somb nit mën na dund ak sida bu fekkee ni mu ngi jël garabam loolu moo tax nag muy liggéey ak service de santé yi service ministère de la santé may remercier ministère de la santé aussi ki taxawaayam donc euh, pour que nit ki mën a dund ak doomu jàngooru sida te bañ ko wàlle il faut d'abord mu dépister wu il faut mu def testu sida fan la koy defee ci laboratoire yi docteur am moo ko koy kii ci centre de santé yi ci poste de santé yi xëy na aussi ci dépistage communautaire bi jël garab il faut que garab yi existe donc loolu aussi ministère moo ñu ci jàppale bu baax à travers la pharmacie nationale d'approvisionnement mais également à travers de partenaires yoo xam ne ñoo ñuy jàppale sida moom xam nañ ñi garab yi ñaari partenaire ñoo koy jënd état du Sénégal mooy jënd genn wàll bi Fonds mondial jënd beneen genn wàll bi depuis début bi fexe nañu gouvernement Sénégal taxaw ba kenn du fay pour jël garabu sida donc loolu foofu la ñu ministère daf ñuy taxaw ci indi test yi balaa nga naan naam ne fa balaa ngay jël garab nga def test ensuite euh, ci garab yi léegi nag ñu bëgg taxawaay bi aussi continuer ci aide à l'observance mooy lan loolu ci loolu la ñu jublu ci campagne bi mooy cible prestataires yi ñuy waxtaan ak malade yi expliquer leen loolu bu baax ba nga xam ne malade bi bu génnee dootul xëy na am kersa ci li mu am sida. docteur bi yokk ci di xamle ne ñi dund ak jàngoro sida bu fekkente ne ñu ngi faju na mu waree dootuñu wàll bile feebar seen doom duñ ko wàll yit seen jabar wala seen jëkkër nee na nag nguur gi yàgg na gunge ñi dund ak jàngoro sida ngir ñu jot ci loolee nga xam ne mooy antirétroviraux yi nga xam ne dina leen may ba duñu ci kenn feebar bi docteur Safiatou Thiam doon bàyyi yile kàddu gannaaw ba ñu doon amal cérémonie de lancement bu campagne de communication U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 Bonjour à tous et bienvenue. Vivre avec le VIH-Sida sans le transmettre, c'est bien possible grâce au progrès scientifique. La personne vivant avec le virus doit juste suivre le traitement ARV pour non seulement améliorer sa qualité de vie, son espérance de vie est égale à celle des personnes non atteintes, rassure le docteur Safitou Thiam du CNLS, le Conseil national de lutte contre le sida. Il est avec Babacar Samb. Dans notre approche au Sénégal, Euh, cet accès euh, sénégalaise aux antirétroviraux avec des recherches. Et donc ce sont toutes ces différentes recherches qui sont menées depuis presque 20 ans qui ont montré que les personnes vivant avec le VIH, quand elles prennent leurs médicaments, non seulement leur qualité de vie est améliorée, elles ont une espérance de vie égale à une personne qui n'a pas le VIH, mais les études ont montré que ces personnes ne transmettent plus le VIH, ni à leurs enfants, dans le cadre de la transmission mère-enfant. C'est pour ça que nous travaillons avec euh, euh, les services de consultation prénatale pour que les femmes enceintes se dépistent et prennent les médicaments dans les pays développés, et les, la transmission mère-enfant n'existe plus. mais aussi la transmission euh, sexuelle. Donc une personne qui a un partenaire séronégatif, si cette personne prend son traitement, ne transmet le VIH. Les personnes vivant avec le VIH ne transmettent plus le virus ni à leurs enfants ni à leurs conjoints en suivant convenablement leur traitement. L'État a toujours accompagné les PVVIH à l'accès aux antirétroviraux selon le docteur Safietou Thiam qui se prononçait lors de la cérémonie de lancement de la campagne de communication non détectable égale